jërëjëf mbokki internet yi ñuy bàyyi xel fépp fu waay mën ne ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi lay nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen comme ni ñu koy defee bës bu jot ah, ñu ngi kolobaan c'est le grand champion yàgg nañ ko def ak moom yàgg naa feeñ ci Zarak Vision wax dëgg yàlla lii du gulet moom Mor Kang Kang gannaaw ba mu mujjee arène national lu yàggul dara moo tëj saison bi mois d'août suma juumul mu diggante mu Youssou Ndour Baye Balla yàlla def mu ñàkk ko boobu ba léegi toogaay bi danañ ñëw incha allah moo ko waral ak adversaire yi ndax ñu ngi koy proposé ay adversaire loolu danañ ci ñëw incha allah ñu nuyu ko bu baax bàyyi ko mu nuyoog mbokki internet yu ko suivre. alhamdulilah jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant sama Serigne Serigne Abdou Karim Mbacké bu baax a baax a baax di ko santaat bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf am solo ñëw naa fi wax dëgg yàlla fekk la ci Colobane comme ni ma koy defee d'habitude rek bi nga mujjee international nationale dara toogaay bi ndax ñu la ci proposer ay adversaire ak yu mel noonu. waa toogaay bi du dara. Mhm. toogaay bi lépp moom loo gis rek yàlla suñu borom moo ko mhm. ala kulin bu ko tuddee ala kulin day am. Mhm. man toogaay bi gënalu ma. waaye nag yàlla suñu borom lu mu na ci yow. ala kulin day am. waaw te man instant yi dañ ma yaakaar. tamit axlu làmb yaakaar ma. Mhm. ndax moor bu jógee rek àddunaay jóg. Mhm. surtout ma rawatina kolobaan gi ma nekk. waaw di wax ne lu jot rek yomb. waaw ah. mhm. ok ci lan nga ne yaa ngi yaa ngi entraîné comme d'habitude. waaw maa ngi entraîné. di contact instant yi contact bi sax laa gën a jël nii. ok mooy loolu ndax man moom suñu écurie moom instant yi daanaka booy yëpp am combat. moo tax chaque jour contact rek contact moo tax instant yi boo tëddee sax doo yeewoo. billaahi mm-hmm. lañ bilanti moo loolu contact mm-hmm. mm-hmm. bu mel ni am na am na lum lay may saa su ne am nga am am nga loo ci jëriñu daal waaw contact mooy mbër contact mooy ku la ne du contact rek kooku du mbër lépp boo ko defee suba gi ngoon gi da war a bàyyi si ité dem contact yi ndax mbër mu dul contact rek yow doo contact xel di ñëw waaw di la jëriñ yokk bari bi yeen saa ñu daan la nga ne mm-hmm. ak sama bi ñuma daan ni duñu ko ko waat mm-hmm. man instant yi lool si lool la nek ok waaw. Mm-hmm. amna na solo si écrit bi nga nekk mu écrit Cheikh Mbaba suma joomul bari na ay xale yu fay bari ku ci melni tay ñagas numéro 2 bari na tamit ay gono yu fa yu di wara bari ci écrit bi noko ko gisee ak lamb jamono ci wa écrit bi santat yalla santat yalla bu baax ndax ay xalé ñoo fa ak mag gi nga xamanteni ni ñu topp seen ginnaaw. su mel ni ñoom Njaaxum ñoom Mor Puy ñoom Modou mhm. ñoom Joomaay waaw mhm. ay ñoom Giri Junior waaw tamit balaa mën a wax dara damay sant euh, Body Maxi mhm. bu baax mii sama coach mu xam naa ne tamit gëj na ma gis waaye xam rek gars yi am combat ñu nekk ci mooy loolu waaw moom duñ ko bàyyee ginnaaw chaque jour suñu xel moo ci moom ak sama grand frère Balla Dia sama grand frère la jax moom xam naa ne gëj na ma gis. moy lolu waaye nak ma ngi sama ruq di liggey waaw moom na xamne ne man fuma nek rek. Mhm. jam mo mo fa téye. Mhm. te mom yalla na am jam bu baax baax baax baax. di santat so coach nag Badassoum bu baax a baax a baax baax. so gi bo xey lan ngay ñëk def di nga dem sal comme comme ni nga ko ran defee. waaw sal lay dem. waaw ci melni ma and ak njaaytin mhm. ñu liggey bu ma ñëwee tëdd nelaw. bu ngon ge ma dem entraînement contact. ok amna solo euh, euh, adversaires yi lay ñew ak yow ndax bokk naa bok nga ci mbeur yi ëpp ay adversaire bok nga ci mbeur yi ëpp ay adversaire ba ci ñi bëré dimanche bi passé xeyna du ñak am nga fay adversaire lu waral ba légui ni dégguñ combat mort wa du dara. Mhm. promoteur yi xamna ño ño ngi wax tamit ñu sa dañuy wax. Mhm. nga dem ba ci dig bi du mhm. ay nak lepp yalla suñu borom la. waaw Lima lay wax rek. Mhm. yalla suñu borom lu mu namul ci yow. allah kulil do am. waye lu mu nam ci yow. man mhm. ngeen fi joge sax. sama combat taxaw. Mhm. te yalla nako yalla suñu borom bi def. amin inshallah man beure rek moma ñor. beure rek la am. barke seigne touba ku may jàppale nag ma jappale ci beure waaw man dama bëgg beure billahi wallahi waye nak yalla baax ta xam nga lim la lim la mëna may. waaw lim ma mëna may manam mbeur noble la. waaw mbeur noble la. Mhm. <laughs> mbër noobul la de. mbër noobul la <laughs> <laughs> mais lu war a nga wax wax ji ba pare di ree non dama xam ne. waaw mbër. Mhm. moom rek am leen li moom rek moo am leen li. Mhm. dangay gis koo xamante ni di koy ëpp li fuuf. nga dig. kooku yëkkati ab téeméeram wala yëkkati cinq mille jox la. loolu mbër rek moo ko am. waaw ngir lan ngir bëgg-bëgg. ak yëg-yëg. moo tax doomu aadama na yëg. mbër na yëg na yëg ci ay supporters am. Mhm. man de samay supporters laa am su ma demee ba gisatuma leen. Mhm. ma tekki sama ngem. waaw waaye nag instant yii ma toll. Mhm. parce que dëgg ku ma gis damay jàpp ne ñoo bokk ndey ak baay. adduna amut solo. waaw adduna amut solo. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay. ñoo bokk ndey uh-huh. am na solo du ñàkk tam ñu ñëw ci question boobu dañ koy laaj di ko laaj di ko laaj bari na lu ñu koy laaj di la ko laaj yow itam muy tukki gi nga xam ne war nga koo def yokk ji doole lu waral Mor ba léegi nii demagul tukki. mën a indiwaat doole joo xam ne dina jaaxal nit ñi ndax indiwoo indigoo fi rek doole ju mën a jaaxal nit ñi ndax keroog bi ngay bëri Youssou Ndour ñu bëri doon dëkk indi nga doole travail nga doole mais lu bari xëy na am na ñu ko gis dafa manqué ci yow. waa àddina. Mm-hmm. dafa jotagul. Mm-hmm. lu jot yomb. Mm-hmm. ndax boo fi toogee naa damaa bëgg a tukki damaa bëgg a tukki. ñëpp bëgg a tukki. waaye nag damaa xam ne. Mhm. bis dina ma sa ñëw si bis ah nit woo ma téléphone na ma tukki googu de daggal naa la billet. Mhm. daggal naa la. utal utal naa la visa. utal naa la visa mhm. da ngay dem. ok te yàlla na ko yàlla sunu borom bi def. bëgg naa ko lool nag. waaye nag dama see am guti jàppale. ok man Mor tukki gi. wallaay su ma sañoon tey tey tey tey tey samay supporteurs gis ma. waaye nag dama xam ne yoonu ndaw du gaaw. waaw te nañ ma jàppale. Mhm. wax naa ko waxati ko ndax boo fi toogee sax na chaque jour dañ ma jàppale nañ ma jàppale ndax dañ naan booy bi dafa soof. Mhm. waaye nag du dara bëgg li may def rek. Mhm. ak tamit bañ rusloo. samay mbokk bañ rusloo samay supporters. waaye nag maa ngi. di leen wax ne képp ku mën a jàppale moor mhm. ba mu dem wuti doole bëgg na ko lool. Mhm. damay toog sax benn instant. waaw may xalaat waaye damay dem ba si digg wi. Mhm. xam ne yàlla sunu borom mooy kenn. kenn du xëccoog moom. looy xalaat boo boo boo toogee. non damay xam ne man. waaw mbir laa. te dama bokk ci làmb. figa idem yi dem gëna ñu fa yelloo hmm. waye jappalé sono amul jappalé da ngay sonu waaw surtout. Mhm. ñun mbëri bawal bawal nak loolu ñu mhm. ñi si am jàppale bariwul. su mel sama sargi gi mhm. Allah jappalé bi demewul nonu waye nak damay santaat Balla jabu ba di ku su melni citeur mafia bi yëpp su mel ñoom Jalaaw. Mhm. ñoom Lour 2 ñoom Moussa Ndiame ñoom Thiaw Star ñoom Trompeur. Mhm. ñoom Tafa Gumbala. Lay Bébé. Dan Kebe. Mhm. Baye Ma sàmba Moodu. Beydi. Baye Laat. Serigne. maa ngi ko sant bu baax ak Elas Serigne yaa faatu. ak grand Tafatine bu Kër Ndiaye grand tafatin bu kër Ndiaye loo ëmb fayam yàlla na ko yàlla fay. Mhm. waaye nañ ma jàppale. Mhm. ma génn sax lu ci mel ni Maroc sax ma dem fa. waaw incha làqu fa. Mhm. incha xam naa ne ñoom buñ ko dégloo. seen yaram dina daw. waaye saa ñor na ma lool. ku si mel ni ñaaxarañ loo bu boox. waaw kooku tamit di ko santaat bu baax ndax su ma ko santul tamit damaa gorewul. waaw gis nga doomu aadama. doomu aadama rek la mën a doon. Mm-hmm. képp koo xamante ni nag. Mm-hmm. ak sama grand maas maa ngi ko sant bu baax maas sama mag sama lépp ak grand jib géey mm-hmm. maa ngi koy sant ak grand Pape nañ may jàppale ak sama grand Ndiame John. sama nijaay kooku sama nijaay sama lépp. waaye nag di wax ne tukki bi. xamna legui rek inshallah allah. inshallah allah ok. Mhm. Mhm. mu yang yang yaa ngi wala ci làmb rek nga nek waaw yeen say madame takhalé djiko ok ci ci naka nga koy takhalé sama boy waaw man ferrailleur la hmm yeen say ma dem fa. mo jàppale len ci bagage yi. Mhm. tourné wat ndax ñom sant ñuma dara lu demal entraînement yi. waaw ñima nekkal hmm ci ala jon Ablaye Ndaw Moussa Ndiame Thiaw Star Khadim Aziz Création Omzo Dollar mhm. Tic Tic bu Faaya ak dofu Mor Kanka bu reefan saa reefan mhm. ñu ñëpp sant ñu ma dara demal entraînement yi wax ak Assane bu Mor Kanka waaw ok mhm. mm. te li la sant yaa ngi ci daal yaa ngi ci waaw man maa ngi ci xam naa nag ñoom seen jàppale tamit seen poste daa demewul noonu waaye ñoom liñ ma yéene wallaahi xam naa ko Mm-hmm. te bis dina mës a ñëw si bis yi. Mm-hmm. wallaahi en général liggéey bu ñu ko yoree jox ma ko. waaw yàlla nañ ko am si doori sëñ Abdou Karim Mbacké. incha allah. mës mm-hmm. nga toog war a jënd loo loo loo jëfandikoo te amoo ko. wala war a war a war a war a def dara te te amoo xaalis boo ko defee wala yu mel noonu. waaw loolu bari na. waaw waaye nag dangay ngay toog sa néeg. jooytu ko boo ko jooytoo. fonkat say ronkoñ denc. yàlla sunu borom ñi dafa binte yemalewul. damay jékki-jékki jaaxle léegi jékki-jékki dara feeñu ma. ma santaat yàlla suñu borom bu baax. Mhm. barke leeru alxuraan. Mhm. kon yàlla suñu borom nañ ko santaat bu baax. yàlla kenn la. Mhm. doonul ñaar de kenn la. mooy borom kun. kon moom rek la war a topp. waruñu topp keneen. barke sëñ Tuubaa. moo tax mun nañ topp yàlla mi ko moom. waaw moo jar a topp. waaw lépp daal santaat yàlla sunu borom bu baax. am na solo ñëw ci adversaire yi cité woon lañ maanaam cité woon nañ Thiatou Daouda Fall cité woon nañ tamit Talfa cité woon nañ tamit euh, ku ci mel ni tey Liss Ndiago doon am na combat euh, adversaire yooyu fan nga ci toll ndax ni ngi la ko doon proposé parce que dégg nañ ci for nañ ci weewu bëy wala ci weewu nag loolu lañ la proposé adversaire yu ci mel noonu. waa li ma la wax rek. Mhm. man pare naa samay mbokk pare nañu. Mhm. promoteurs yi ñoom ñoo des. ok man jamono jii ku ma làmb booleel. Mhm. ma xam ne sama wërsëg la. Mhm. ndax yuusu daan ma. waaw. yàqalu ma dara. Mhm. arrière ma sonalu ma. damaa war a daan. ndax moom ma jiitu ci làmb fopp. kon kooku su demee ba Mor di bëreek moom. loolu ak sant yàlla la. man bari na fi bàyyi na fi sama morom yu bari. Mhm. du njàmbaarte de. yalla yàlla sunu borom moko bind sa ne allah kulin champion ngay don, kon ñun dañu wara don champion hmm gënuma ñima dan man gënuma ñima dan ken ku ne sa yaay ak sa papa dalay ñaanal. deug la wa yalla sunu borom moy maye. Mhm. bu ñewé rek ñewna na. Mhm. motax lu ñew dañ ci and ak hmm mu xam mu tuuti moo xam mu bari lu ñëw dañ si ànd ak moom. ok damay toog sax. Mhm. dox. billaay jamono jii mooy loolu damay rus sax génn. damay dox mbër lu tax amagoo combat mbër lu tax amagoo combat xam nga lu ma leen di wax. Mhm. yàlla sunu borom da ko tuddagut. waaye lu mu tudd si jaamam allah kulli ndey am. ni mhm. santaat yàlla sunu borom bu baax. ok. Thiat Daouda Fall mën na la woo di la ko wax. waa ñëpp. loolu nañ taxaw ci Thiat Daouda Fall. mën nañ la woo di la ko wax. waaw wax nañ ma ko. léegi ci yow la ci yow la yàqoo wala da ngeen a déggoowul. non promoteur yi. da nga déggoo pour ci promoteur yi la. Mm-hmm. mais moom bëgg na yow bëgg nga. man déggoo man ni gis nii. lu mm-hmm. staff waxee rek moom laa wax. ok xam nga man xam nga man yoruma kaddu. Mm-hmm. man yoruma yoruma sama kaddu. waaw man Balla Dia sama kaddu ak Sëwru Fall. ñoo yor sama kàddu ok waaw. Guirou Seras seraan nga ko keroog. vidéo bu ma def ak moom. waa dégg naa mu ne. waaw. du bëreel bawol bawol ku Mor Kanka. Mhm. Mor Kanka la fi bëreel wala mbay guuy gi. Mhm. wal loolu beug beugam la rek. loolu beug beugam la ndax ken ku ne ci beug beug ngay wax. waaw. waaye yeen say nga ñew bëgg jot ci mbër momu hmm moomu momu mhm. non do ci a jot. ndax xamal tax do ci mën jot jot. ken ku ne wërseut hmm ta man fi man fi ma ni hmm nañ ma jox ñi ci kaw ma bëreeg ñoom. ba may depp sama ginaaw jël giroo dellu sa ginaaw la. gis nga euh, lamb daam ñu ko moom. waaw. te man dama bokk ci lamb xoolal su mu jógee àdduna gi jóg. Mhm. dañ naan mbooloom Mor fan la nekk. ñaata ñaata dëkk ñoo koy mhm. kon maanaam nan ñu fay xaalis ñun bëri ndaw yi ñu dem bëri ji. ok mag yi fay ay millions mag yoy nonu ëpp ñu nu mbolo tamit gënu ñu no lamb hmm ñun dañuy lamb barki sëñ Tuubaa làmbantewuñu de mhm. ñun dañuy lamb hmm waye nak yalla baxna may jël gi ro delu ginaaw la nga yaakaar sama staff lu ñu wax rek instant yi parana waaw mhm. mais japp nga ni ñaar euh euh manam du sa adversaire potentiel par rapport ak li fi def fii ci Bawol sax lay wax waaw doonagu ko ne instant yi moom doonagu instant yi doonagu ko ok mhm lu waral doonoo koko ko ñi nga ki nga mujjee bëreel la wala. waaw ki ma mujjee bëreel da brik ay ndaanaan de. waaw ay temin tamit ñoo mudan daan. mu daan ay ndaanaan. Mhm. ok. kon manam lon loolu yàqulu ma dara. Mhm. mais Giro itam dafa dafa bëri Ndiaye Tine donte ko defet la ci am. brik toner Tonnerre 2 Nokia te ñooñu ñëpp bawal lañ ne te ay champion lañ fi. brik boy Dakar ba ci ki mu mujjee bëreel nii. waaw da ngay xol ñaar ñan ñaar ñim fi daan rek. ñaari ñu fi daan ñooñu ay mbër lañu. waaw bisimilah tonnerre deux sama mhm, mag. Mhm. yàlla na ko yàlla defal jàmm. Mhm. mu am combat. promoteur yi ko gëstu. waaw mu am combat. gis nga mbër te ngay jékki-jékki tàkk. jékki-jékki gars fay la. waaw. waaye tonnerre deux la. xewoon na fi ay jamono te bu jógee Colobane jóg. <laughs> waaw kon maanaam nañ ko jàppale. dooleel ko. gis nga affaire yi fii. buñ la jàppale wër doo dem. Mm-hmm. te yoonu ndaw jàppale dasaa ànd. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax su ma toogee yoon saa yi sax damay bëgg a jooy ndax li ne sama xol. mënu mu wax lépp. ok waaye nag dama di bàyyi faal di taalib sëñ Abdul Karim Mbacke bu baax. barki sëñ Touba. moo tax ni muñ muñ rek mo jara muñ waaw bo muñul rek do do ko fa am do ko fa am lo muñul do ko fa am mm-hmm. kon manam di wax ne man ba wala am surtout man ak koloban gi ma nek mm-hmm. su melni ni Thierno Ndiaye nañ ko jàppale mom tamit ok mais lu waral nga bëgg Thiat Daouda fal te bëggu giro Seras Thiatou Daouda Fall waxuma la ne ne dama ko bëgg sax de. wa sank la na nga ni làmb boole ne ne ñaar. adversaire la français gis nga mo giri Saras mom yëpp làmb boole nañu. ok ñoom ñëpp làmb boole nañu. waaye ni ñu ñëw wax ak sama staff. Hmm. wax ak Sëwru Fall. man ñoo ñu d' d'accordé d'accord na man lamb la lamb man lamb la am. Hmm. ta lamb moy sama métier. Hmm. ndax ku dem ba ba xawa bayyi sa métier. ngir hmm kon da nga see war a wane fulla ak njàmbaar. de retour de Mor Kanka. Hmm. dina garaaw de. mbaa lu lay doon. dama koo xam de. waaw. ndax yàbbu ma sax samay supporter. Hmm. ba leen di joxaat beneen defet dina yéex nag. waaw ndax kuy bëri yaay daanu. waaw kuy bëri yaay daan. Hmm. waaye dana yéex waaye retour bii nii nii nii xaw ma Mor Kanka ku mu njëkk a ah, boobu yàlla baax na. ok fi ne de moom coow li mooy Guiro Seras Mor Kang Kang xaw ma nag moom du ñàkk làmb jooju xëy na dinañ ci ñëw incha allah ca kanam a kanam a kanam. waaw incha allah lu rek lu jot rek yomb. Mhm. lu jot yomb bëgg na ko. waaw waaye bu mu yàkkamti. moom nag yàkkamtiwul ah parce que carrière ko daf ko daf ko rayante ah. waaw da ko rayante. waaw dafa xaw a tardé lu bari sax. dafa tardé. dafa a tardé lu bari. Mhm. Mhm. am na solo bëgg na ci yow lan ngay wax wa Bawol ak wa ñi bëgg manam waa di wax ne. man mhm. nañu moo Bawol la rek. tamit Bawol la am. Mhm. amul xalé amul mag. kilifa yi nek Bawol yëpp nañu gess ñun bawal Bawol yi ñun Bawol lañu am. Mhm. motax euh, man direct Bawol moy daw sama yaram. motax tax ma la bu ndaw bi nga xamante day soga ram sax bu doon te dëkk bawal kooku dëkkul bawal ki dëkk bawal laay faral. ndeysaan barke sëñ Tuuba. Mhm. de fertale bawal bawal. waaw bàyyi yaay bawal bàyyi bàyyi bawal. Mhm. ñëw fii daan sa doole. Mhm. loolu dafa metti moo tax bul am ba fàtte bawal. bul am ba fàtte sa cosaan. cosaan mooy lépp. fala maam yi bàyyeekoo. fa la yaay yi bàyyeekoo fa la papa yi bàyyeekoo. moo mm-hmm. tax ma ñu santaat yàlla di santaat waa es waa waa jës waa jëspra bi waa jëspra bi kull koo xamante ni rek yaa ngi béggee Mor Kanka ngi lay sant. Mm-hmm. di leen santaat bu baax gis naa message yi may yin may message. Mm-hmm. gis naa waxtaan bi ñuy waxtaan ak man waaw. di santaat kullu di santaat fukki pénc ndakaaru yeeg ñaar bu baax a baax a baax a baax. waaw. amna na solo lan ngay lan ngay tagato wa limay tagato mom, di wax ne ma ngi sante Mané. Mhm. sama yaay ji nga xamanteni ne mo nek fi mhm. waaw di santat euh, sama wa keur ku ci melni ni tonto pafal ku ci mel ni tonto pafal ak euh, Père Koné mang koy sante bu baax. Mhm. koku tamit waran nako ko bu yag yag mok mook séeri Ndey Faatu maa leen di sante bu baax baax baax baax di santat kep rek kuy bëggee Mor Kankang rek. Mhm. kep kuy bëggee Mor Kankang ndax de xel day foto. waaw mëno sant hmm nyep di santat ñep kep ko xamanteni ni rek yaangi ngi Mor Kankang di titoro Mor Kankang. hmm lay sant. waaw mhm. yow nak dila sant bu baax. waaw yow sama waay nga. man aw sa fay. waaw yow mboko bawal bawal nga. Uh-huh. yàlla baax na. Mhm. li ci kanam rawati hmm téré won nañ ma li sax. waaw waaye nag yow yaa ko fa am. Mm-hmm. waaw di santaat nag Aziz création bu baax a baax a baax. Mm-hmm. moom lu mu ñawul baaxul. di santaat Axma. Mm-hmm. Axma maa ngi koy sant. Axma bu ndrep. ummi ummi taal. waaw di sant bu baax. waaw di sant jibi magam. maa ngi koy sant bu baax di sant nag waa Colobane gépp. aw ma seen fay su ma limbee rek damay juum ku si mel ni ñu ma Abdou. fàllu sama doom nday moo ngi États-Unis yàlla na ko yàlla defal jàmm. amiin incha allah bàyyi jilit. bàyyi jili maa ngi koy sant bu baax fu mu nekk. yàlla na ko yàlla defal jàmm. non bàyyi jili kolobaan. <laughs> Ah, yàlla na ko yàlla defal jàmm. fu mu ah. nekk yàlla na fa am jàmm. Mhm. waaw. Mhm. di santaat ñëpp daal. ñëpp daal maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax. Mhm. waaw jërëjëf jaajëf.